asalaamaaleykum les jeunes tey dama lay indil ci fànn bi ma la doon wax ne dinañ ko saytuwaat gën ci taxaw gën ko jàngat muy li nga xam ne mooy subconscient gis nga li ma lay wax yëpp dafa doon lu nekk ci yow loo xam ne yàlla moo ko dëxañ ci yow li ma lay wax ay xam-xam la yoo xam ne dafay rek yee li nga xam ne moo nekk ci yow pour nga xam ne dara génnu la yow foo ci toll boo bëggee mu nekk ci lépp loo mën a jànkonteel li ñu wër yëpp ay tegandaay la ay dëgërlaay la yoo xam ne ñun ñoo ko fi teg pour man si dimbaliku yenn yi ci yenn situation yi mais gars lii dëgg bay dëgg mooy yàlla pare na ci ñun la ma waxoon fële rek ne rasulullah sallallahu alayhi mooy nabil ummi yi amul benn école bu mu dem toog ñu koy jàngal benn professeur la ma sa am muy Seyna Jibril te gis nañ na nga xam ne moo doon doonoon relation bi di la tegtal dara lu dul rek dëggal la ne lépp mu ngi ci yow nga jóge daara nga jóge école nga dem Cambridge nga nekk dans l'école de la rue comme ni ñu ko ma sa waxee loo manti def sa xel boo ko méngale ak sa bëgg-bëgg loo bëgg di nga ko am lo bëgg di ko am parce que yalla def na ko ci yow ci subconscient dafa lay dama lay indil tey xisa manam ben histoire bo xam ben benn la bu nga xam dafa am cancer cancer bi dem ba nga xam ne ñor na maanaam ci phase terminale fa nga xam wax dëgg yalla yaakaar amatul docteur ya wëroon di ko saytu di def ay analyse di def ay suivi di ko defal ay bilan ñu koy saytu mu nekk à l'hôpital machine yaag appareil yaag yëpp wër ko ci xam-xam ak yëpp waalo ñu yegsee ci noonu docteur bi nga xam ne moo koy suivre xamal ko ne ko fi mu nekk nii ay la yéwén yegsi naa ci benn euh, point boo xam ne pronostic vital maanaam fi mu ne nii dañuy wax pronostic vital mooy maanaam joxatuma la ay fan yu bari waaw dinaa la ko wax nag jël sama responsabilité pour nga xam ko pour ñu mën a arrêter traitement yi parce que cher na et puis dafa commencé di yëngal sa yaram ndax chimio bi dafa metti noonu ñu arrêté lépp góor gi jóge foofu dem këram toog na ñaari fan ji xalaat ci mbiram benn bés guddi ci concentration bu mu nekk mu jékki-jékki rek xelam mel ni daf ko yabal mu dellu gannaaw ci ay at yu sori mooy ba mu nekkee xale góor gi ma lay wax de ëpp na soixante-dix ans waaye xelam yabal na ko ca ba mu doonee xale waaw comme temps yi ñu ànd rek di def toj-toju xale yooyu di dem di sàcc ay màngo affaire yooyu góor gi fàttaliku benn bës boo xam ne dafa sàcc génn ci kër gi ay waajuram gisuñu ko mu génn dem football yi ba mu demee football yi am fa benn gaañ bu metti boo xam ne ci um bi la te xam na ne bu ko wanee dafay metti parce que ñii bëgguñu mu génn mu koy nëbb xam nga affaireu xale góom boobu mu koy nëbb donte xale la faju ko góom bi dem mu koy lijjanti bu mu wér te kenn laalu ko kenn laalu ko mu ngi mel ni tey jii su oom mu xolleeku mbaa sax mu dagg nga bàyyi ko noonu di ko nëbb ba mu xëy suba tëjal boppam parce que noonu lay demee gis nga affaire bu ndaw boobu moom la xelam dem mu xalaat loolu ci guddi gi mu ne waaw man man mi nga xam ne lii dal na ma te keroog boobu ma dalee gis naa deret ji ni mu sottee ak métit bi ma àndal kenn fekkuma fi pour faj ko te ndaxam affaire bi fajal na bopp pareegul de xelam yabalaat ko ci ko waa yow lu tax sa mbir nga bëgg ko bàyyi ak ay docteur ba docteur ñëw taxaw ne la yow li la dese bariwul da ngay ci ban illa la ci ban dëgër laay la ko teg ko ban xam-xam gis nga de mu jël ñaar yi ko mu nekkoon nag taxawal man mii diw ak li nga xam ne moo nekk ci man xaw ma lan la waaye xam naa ne moo may faj waxul yàlla de li ci biiram rek la wax xam naa ne moo may faj ndax ba ma tolloo ci loolu moo ma fajoon kon nag léegi li am lenn la gis nga yow moomu ci biir nekk ci man ànd ak man te wóor na ma ne yaay ki nga xam ne boobu léegi xam nga lu xew yaa ma fajoon sa sama daanu bu metti ba dama bëgg sama lii nga faj ko dama bëgg sama lii nga faj ko bi mu waxee loolu am na benn bu mag bu ñëw dalal xelam ne que lii nga wax mën na doon sa ndorte pour nga faju góor gi dañ si tek ñeenti fan ñu commencé gis mu commencé di lekk parce que dafa nekkoon régime boo xam ne na yu bari yoo xam ne ko mais ba mu amee ñeenti fan yëg ci yaramam mu ngi commencé di am appétit duma guddal góor googu dundaat na lu ëpp fanweeri at ndax wér fa mu jaar ak docteur ya ak ñoom nañu jaaxleeg yooyu matuñu ci dellu li ma leen bëgg wax xam nga mooy lan gars gis ngeen subconscient dafa yéeme mooy tax yow njaayeen bi nga jóge ci tabaski ji paase am fit jël lu mat ñaari kilo yàpp man ko lakk teg ko dëtamu ko lekk ko ba mu jeex nga teg ci coca sa xel dal ndaxam posé wuloo la question waa lii ma dugal sama biir yëpp kan moo koy régler kan moo koy sattantal dindi graisse gi dindi yi nga xam ne ay glucides la ak ay lipides yi nga xam ne tey jii moom moo war dundal mu lijjanti ko deux kilos yooyu sama biir méttiw ci

parce que yalla mi ko dugal ci yow daf ko dugal ci yow pour mu meuna gérer le système bu système bi demee ba nga xamné dafa nek en situation de danger fay riposter indi solution yi nga xamné moy solution ye gën matale solution ye gën takke pour régler affaire bo mo dalon koku ba mu doonee xalé ba mu gaañoo mo fajj gañ bo médecine bi ngeen di gis ni yeen ñep yeen ngui koy dund ku ci nek am nga gañ bo xamné ne kenn laalu ko da mu kan moo xiss bu mu ndax jant bee ko lak ak yoy dedet dafa am lu nek ci yow lo xamne la nga xamne moy réguler affaire bi arrêté deret ji bu ko arrêté ba pare lolou nga xamne mom moy métit bi mu géré ko ba métit bi di res lolou nga xamne ne muy ubbeeku bi nga xamne mom lu gombi góom bi mu koy gérer di indi les éléments qu'il faut ba lolou mën dem ba tëju nga dem ba mu don ben lëgët bo xamne di nga tok dix ans trente ans après nga ne li de samay gaañ ba won ken jaaru docteur jaaru fa pénicilline jaaru fa leneen jaaru fa xarab bu mën ak médecine waaye dama leen di bàyyi loo xam ne subconscient kenn attanu ko gis nga nit ki nag kenn la gis nga kii faj kooku gis nga ki nga xam ne moo ko fajoon ba mu doonee xale kooku moo ko topp bu foofu mu tëdd moo taxaat mu dundaat trente ans après gis nga kooku changé wul ak ki nga xam ne mooy gere nokkeem parce que du nelaw Yo boy nelaw subconscient ba ngi nek gérer le système lépp lay gérer dindi ak sa dund bi ngay dund nga don un jeune nga jankontek soxla tay ji ay solution ci sa affaire solution yoy bu ko outé ci fenn outé ko sa ak sa sa conscient manam ce li nga ak li ci concentration am bu concentration amé comme la ma la wax baye adina di le fëkk ci yo xam daf lay déconcentrer concentration bob mom lañu yalla baxé ci julli jànget la bo paré concentration bob ba nga jot sa bopp li naan nga jot sa bopp nga am conscient subconscient ñu aligné bu boba ay solution rek moy ñew ci yow comme nak subconscient bi dafa nakaré indi baloo tax mané ne bu melni yow nañ ko jël ne ko ndékki moom la ñu laxas affaire bi bu ko defee bu bëggee léegi dina jóg loolu mooy le subconscient premier cas bi wax naa ko mooy li nga xam ne moom mooy concentration bi concentration mooy tax conscient bi nga nekk nii ak li ci biir ñu am benn jonjoo boo xam ne dañuy nekk benn lépp lu nga xam ne daf lay fëkk te mu jóge ci biti nga arrêté ko concentré wu ci sa bopp am benn objectif bu si le subconscient bi commencé di liggéey ci loo xam ne dina la manager il jariñ lu mën a régler problème boobu la koy gën a mën a situation de risque parce que subconscient bi li nga xam ne moo tax yàlla tàggat ko ci yow c'est pour mu gérer ce système yow sa bop depuis sa kaw karaw ba ci souf lepp mom moko gérer lepp luy situation de danger nga tit ko mbaa muy micro bo xam dafa dugg ci yow ba ko xamné ki kii daf la bëgg lu mu manti doon subconscient bi moy taxaw indi les solutions appropriées mais moom bala muy ñew situation de danger mo gëna a doon ci li nga xamné day taxaw tax bañ ne pronostic vital li la des ci bari wul mu xamné ne caaxaan mo tax ba loolu amé alerte am mu jubboog bopom mu tok solution gen. benen bi moy subconscient bi dafa yéeme te loolu dama lay indi li nga xam ne tëgguñu nit si la gaa yi mbaa yàlla ci mbaaxam parce que moom mooy dugal ci nit di ko xamal ci loo xam ne moo koy avancer di avancer àddina ordinateur bi nga xam ne moom la ñuy jëfandikoo dafa am trois dimensions dafa doon ordinateur bi ci boppam mooy kees gi nga xam ne moom ngay gis te mu yor bouton yi yor clavier bi yor yeneen ak yeneen ak écran bi kooku mooy sa jëmm ji ngay gis nii say loxo say tànk say bët ordinateur boobu dafa am li ñuy wax disque dur mooy gis nga ordinateur bi bañ ko taalee ba jonn yàlla tey lépp lu nga xam ne opération bu dugg ci moom mbaaloolu daf ko enregistré mu ngi ci disque dur bi loolu moo nekk ci nit moom la ñuy wax l'inconscient ba nga daa sàcc màngo lu ko jiitu bañ lay faral loo xam ne fàtte nga ko moom fàtte ko mu ngi fi stocké ko ba ci démb li nga lekk ceebu jën bi nga lekk yëpp enregistré na ko la ca xew yëpp enregistré na ko même bu duggee ci sa biir bu doon yàq boo xam ne dafa nekk ci biir mbaa boog nga def ko mu daw si biir ak yooyu enregistré na phénomène bu téye ko c'est ça le conscient loolu inconscient mooy disque dur gis nga inconscient bobu. ki ma la doon wax léegi ba nga xamné tok na ba problème am subconscient bi jog wala solution fa la dem tibbi information mu ne ndaxam ki de ba mu nekkee ci âge bi li dalon na mu dem jëli loolu jangat ko indi ko muy solution ñu tek ko c'est ça l'inconscient loolu mu ngi ci ordinateur moy disque dur Bo démé tay ji say fichier yépp fa la dugg tey ji boo soxlaa photo boo xam ne y a dix ans fekk sa ordinateur jël na ko muy cloud mbaa fépp lu mu ci mënti doon rek système sauvegarde le boo xam c'est pour mën a jëli fa la koy tibbee léegi nag mu des logiciel bi nga xam ne logiciel d'exploitation loolu nag mooy subconscient bi ma lay wax moom mooy Windows tey jii nga soxla mu indi la ay éléments nga soxla benn affaire mu dem jëli la ko joxal la ko indi la ci simplification bu gaaw mais gis nga ci ordinateur bi lay sukkandiku parce que mom mom si la clavier bi nek parce que si la clavier bi nek ak yooyu mais dafa sukkandiku aussi ci inconscient bi parce que foofu lay tibb ay information lek li nga xamné mom lañ ko tëggee mom manam logique bi nga xamné mom lay doxé te mu war indi bép situation bo soxla ci ordinateur bi mu indi lako bo bëggé dem Google bo bëggé def recherche bo bëggé def yépp mom moy ki nga xamné mo moo lay jox élément yi mbokk jàppal bul bu ragal du financement mo koy réglé du diplôme mo koy réglé li koy dégmal li koy sa bëgg-bëgg ya ngi bëgg sa xol diko dundal diko suxal bëgg-bëgg nga ak sa xol nga sa sa intelligence ñëw ak contribution kenn du la